ñaan ngeen baal ma di baal ak ñëpp di leen jox nuyoo ak ziyaaru Cheikh Mouhamadul Mountakha xalif général des Mourides nii ko suñu imam bi waxe muy Cheikh Moustapha ibnu Cheikh Abdoul Khadr Eh, ci xutbaam ak yóbbante bi nga xam ni sëriñ bi yóbbante na ko yóbbante ko ci jullit yëpp yóbbante ko ci umma islamique bi yóbbante ko tamit ci képp koo xam ni kii yaa ngi dëkkee réew mi moo xam jullit nga moo xam beneen diine nga topp di leen ndokkale di leen ñaanal ñaan jàmm ñaan àndandoo ci réew mi nga xam ni ci jàmm rekk ak solidarité ci la nit ñi mën a ànde ba yaakaar ndimmal loo xam ne lii day jóge ci suñu borom ndaxte yàlla moo ne na ngeen ànd doon benn doon benn say bu ko defee sama ndimmal ñëw ci yéen di nuyu sëñ Maxtaar ba mi nga xam ni ak euh, kàngam yi mu àndal ñuy ay ministre njiitu réew mi yebal leen fii comme ni mu koy faral di defe ak mu ne ci xew-xewu diine bu fi am fii ci Massalikul Jinaan bu di leen fi yebal ñu ñëw teewal réew mi muy ñu leen ci ndokkeel di leen ci sant mu doon fat ñu doon suñu mbokki taalibe e ñëw fii en tant que taalibe ñoo ngi leen di ndokkeel di leen ci sant sant boo xam ne bii am na tàmbali mais amul yamuwaay di leen yóbbante ci kilifa gi ay yóbbante cant ak nuyoo ak ziar ak ñaan nii ko sëriñ bi waxee ndaxte ñaanal ko mooy ñaanal réew mépp mooy ñaanal sa bopp ndaxte koo xam ne moo yor bopp réew mi dangay ñaan moom mu mucc da ñaan mu am dal da ngay ñaan mu am tal bu ko defee réew mi mucc réew mi am dal réew mi am tal kon ñoo ngi koy ñaanal dal ñaanal ko ak mucc ñaanal ko tamit yal na yàlla def mu gën a jëg réew mi ba xéewal yépp nga xam ne bi yaakaar nañu ko ci réew mi sans borom indi ko te ñu muurloo ko ak jàmm di ñaan nawet bi di ñëw yàlla na ko sans borom barkeelal barke rek am solo ndox mën naa tuuti te mu barkeel ndox mën naa bari te du barkeel kon barke moo jar ñaan yàlla nañu ko yàlla defal ci barke borom Touba di soññ sama bopp di leen soññ ñun taalibe Serigne Touba yi di leen xamal ni yàlla baaxe nañu loo xam ne lii amul ci ñu jëkk ñi amul ci ñu mujj ñi mooy sëriñ Tuubaa di xaadimu rasul taalibe nag bu fekkee ni bii wala doomu aadama yàlla nàkkal na ko wutal ko cër bu mat cër boo xam ne bii cër bi ku ne bëgg na ko day am loo xam ne lii da koy taxawee muy royuwaay boo xam ne bii ku ko xool ku ne bëgg a roy ci moom ndax njiitam ndaxte yowmal xiyaam de sama borom nee na ku ci ne ci sa laa lay attee te ñun bu ñu attee ci Serigne Touba suñu xel war a dal dafa ne yow ma nadduhu kullu unaasin bi imaamihi kon bu ñu amee njiit lu mel ni Serigne Touba suñu xel war na dal suñu xarit war na dal ci réew mii te réew mii du réew mi gën a rëy ci réew ci population ci koom ak lu ne waaye am nañu koo xam ne meneen réew amu ko mhm. boo jógee Makka bala ngaa gisati lu mel noonu da ñëw fii mm. yàlla muurloo ñu ko muy Serigne Touba kon suñu xel war na dal mm. ni réew mi dina bokk ci réew yi nga xam ni mooy réew yi gën a am solo mm. gën a am kaaraange gën a am xéewal ci réewu àddina yi du sama wax waxuy sëriñ Touba la nee na fu xéewal ne ci àddina bi ñaan naa ko te sans borom a ngi koy indi kon bon suñu xel war naa dal ñu bokk àndandoo juboo rafetal xol yi ku ci ne la nga yéene sa bopp nga yéene ko sa kon maa ngi soññaat sama bopp di soññ bokk taalibe yi ci liggéey bii nga xam ne bii gis nga nii ñu jullee fii e, yàlla mën na def balaa déwén ñu dugg ci jumaa ji mën na dem sax xëy na geneen julli gi ñëw ndaxte biir bi noppi na ñoo ngi des ci ay rekk kocc koccali ki wuti tapi ak ay finition yu ndaw hmm. ma di ci gën sonn sama bopp di ci soññ taalibe yi di wax nit ku nekk na nga gën a góorgóorlu ci liggéey bii nga xam ni bala ñoo gis liggéey bu ñu melati dina yàgg kon maa ngi woo taalibe Serigne Touba yëpp ku defoon benn na nga def ñaar ku defoon ñaar na nga def ñett te xam ni lu waay def sa bopp nga ko defal kon maa ngi gërëm ñëpp di gërëm ñi nga xam ne ñoo ko organisé ak ñi nekk ci diiwaan bi ak ñi ñuy jàppale ci liggéey bi ak ñi nga xam ne ñii ñoo fi nekk di ko saytu ak ñun di ñaan nag sans borom ci kattanam baaxam ak yërmandeem mu tibb ci dooleem ji yàggal fi Cheikh Mouhamadul Mountakha wéeral ko ba lépp lu mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba mu liggéey ko ni mu ko bëggee ànd ko ak njabootu sëriñ Touba ak taalibe yëpp ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax déwénati. déwénati ku ne ci diwaan bi